actualité aussi dañu ko focaliser woon ci politique ci mhm. lu jëm ci Amadou Ba ak Macky Sall mhm. aujourd'hui je fais le constat les deux journaux encore une fois reviennent mmh. sur cette situation Macky Amadou Ba léegi man li ma jaaxal mooy mhm. euh, Macky Sall dafa dafa ne du bokk ci élection présidentielle 2024 Amadou Ba ñu def maanaam ñu ne képp koo xamante ne bëgg nga doon candidat ñëwal nga waxtaan ak ñun Amadou Ba ñëw. Hmm. Abdoulaye Daouda Diallo ñëw. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñëw ñu ne def nañu waxtaan nañu choisir nañu kenn muy amadu Ba hmm. donc Amadou Ba moom mooy candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar hmm. ñu dem élection présidentielle malheureusement ce qui s'est passé s'est passé avant ñuy dem sax ci élection présidentielle bi. ñu bëri génn ne Amadou Ba dëggantaan nekkul candidat wu Macky Sall ñu bëri ñoo ko wax léegi euh, le maire de Kaffrine mm-hmm. Abdoulaye Seydou Sow moom moo génn keroog mu ne Amadou Ba am na ay jamono moom ak Macky mm-hmm. Sall sax réer woon nañ beaucoup de journaux ont encore une fois repris ces mm-hmm. propos est-ce que ci jamono yi may def revue de presse ma poser la question est-ce que c'est parce que réeróo boobu noonu. dafa am impact ci li nga xamante ne moom mooy les résultat bu élection présidentielle notamment bu mm-hmm. coalition Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. parce que li tax ma laaj question boobu mooy boo fàttalikoo bu élection présidentielle bi ñëwee man dama jàppoon ne waa Benno Bokk Yaakaar ci seen bopp bokk nañu ci li tax wala ci li daan Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. est-ce que l'avenir nous doon raison ci li nga xamante ne moom la ñu doon posé wu ay questions jamono jooju noonu. léegi nag bu ñu xëyee tey ñu wax ñu ne Macky Sall ak Amadou Ba kan mooy doon le chef de l' opposition tey jii naturellement. Mhm. Amadou Ba est naturellement le chef de l' opposition quand je dis naturellement pourquoi parce que jàpp naa ne bu ñu xoolee ci li nga xamante ne moom mooy le statut du chef de mhm. l' opposition. ñu ne élection présidentielle 2024 bi ñu génn Amadou Ba moom moo nekkoon deuxième derrière le président mhm. actuel Bassirou Diomaye Faye donc naturellement il est le chef de mais li tax ñuy poser wu question mooy bu fekkente ne ce chef de l'opposition a un mm. chef est-ce que mm. ce chef la ne sera pas le chef de l'opposition et ce chef-là c'est Macky mm-hmm. donc est-ce que Macky Sall est le chef de l'opposition d'autant plus que ñaar ñi Amadou Ba ak Macky bu fekkente ne réeróo bi ñu amoon mm-hmm. laataa ñu yegg ci présidentielle bi saafarawuñu ko mm-hmm. est-ce que jamono ji nag Amadou Ba dina nangu Macky Sall ñëw nekk chef am loolu mooy la question qui se pose maintenant bu fekkee ne yegg nañ jamono jooju nag. Mhm. il faut ñu il faut il ñu reconnaître benn mbir gis nga boo ko xoolee les partis yi nga xamante ne c'est des c'est des anciens partis. Mhm. le parti socialiste a donné justement l'exemple ñu ngi commencer toog pour waxtaanaat retrouver wu parce que changement de paradigme politique bi nga xamante ne. le PASTEF imposé na ko ci Sénégal changement de paradigme politique bi nga xamante ne. ñu bëri tey jii noonu la ñu gisee li nga xamante moom mooy jëmukaayu Sénégal ci politique. donc c' est normal encore une fois que ñoom ñu toog waxtaanaat euh, d' autant plus que Macky moom tamit toog na ba jékki-jékki gars yi commencé def réunion les députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar mu woote ne leen def leen téléphone bi haut-parleur moo wax ak yéen lan la wax ak ñoom. ban taxawaay la ñu war a am ci opposition bi est ñoom ci seen bopp dañuy fu mujjee doon ay opposants ci seen biir ce qui est sûr et mooy je le disais il y a de mois est-ce coalition Benno Bokk Yaakaar va perdurer wala dañoo yegg si ci li nga xamante moom mooy justement le déclin mhm. de cette coalition Benno Bokk Yaakaar ce qui est sûr et parce que boo ko seetloo toutes les coalitions yi nga xamante ñoom ñoo gouverner ensemble mhm. dès l'instant dinañu xoolaat seen bopp de. parce que mhm. parti socialiste li ñu def nii AFP dinañu xoolaat seen bopp. Mhm. yeneen parti dinañu xoolaat seen bopp. parce que bu ñu ko parti socialiste. Mhm. parce que bu ñu ko deful. ce sera la leur leur fin politique. <laughs> ba ba Babacar on parle de Benno Bokk Yaakaar peut-être mënuñu wax si yéen ñëpp ngeen participer ci sujet yëpp mais dinañ la interpeller peut-être ak seen parti on parle de Benno Bokk Yaakaar ak yeneen parti mais